Cheikh Ahmed Tidiane Dia dëkk Tivaouane waaw mën na dama fi amoon rendez-vous tey fii si orthopédie bi ak suma jabar dafa fracturé depuis lors bon rendez-vous bi ñu ma ko joxee léegi ça fait presque trente jours ma ñëw tey bi ma ñëwee ñu ni ma rendez-vous tey dañu nekk en grève léegi defalaat ma rendez-vous le 13 juin ci koo xamante ni dafa fracturé depuis presque un mois et demi tey la ñu waroon def rajo bi ñu ni ñu joxaat ñu rendez-vous le comment dirais le 30 juin loolu fan lañ ko teg ñun ñoom bu ñu amee problème kii lañ amal problème comme dirais-je état bi lañ amal problème mais ñun population bi waruñu subir les conséquences dañu war a faj ooy problème ñoom ñi def seen lu ñu weng waxatuñu ñu nekk si enquête mais duñu taxaw wala ñu xeexe neneen mais Sénégal mooy dëkk boo xamante lu neex def pour quelle raison mais war nañoo xool sax neneen noo xamante ni ko xeexe la mais population bu ñëwee war nañ leen mën faj parce que population bi tey actuellement ni ñoom ñoo war subir les conséquences léegi nag waaw léegi. bon ah léegi nag bon comme noonu la demee man ma ma saisir leen bi ma leen saisir ñëw wax li nga xamante ni moom moo ñu metti li ñu metti ñu wax leen ko état bi jël ci ay responsabilités parce que ñun tamit ñun defuñu dara defuñu dara ñun population bi la amuñu leen loo xam ne def nañ ko amuñu leen loo xam ne nañ ko